boo koy liggéeyal tam dëgg ci yow. dara du jomb la. gestion bay tëddee noonu. Ah, dara jomb mm-hmm. xam nga fekkoon administration la moom da ngaa da ngaa da yokkal ma. waaw xanaa ak ab jaañ léeg-léeg ñoom foo xam ne day dëgër ab jaañ day dëgër. ba mm-hmm. nit doole subventionné. Mm-hmm. ñett mi ngay fay ñu teg ñett téeméer nga mën koo gas mu jàll. incha allah ñu dem ci mais balaa boobu man. xoolal sëñ dinaa wax jigéen ñi. waaw euh, li faatu ci ay góor. waaw Chérif moom jikki beex moom moom. ñi faatu. voilà waaw dese góor ñi góor ñi dafa jéggi daay faatu góor ñi 5371 la. jigéen ñi 1004. ñoo fay. ñu denc rek. denc góor ñi ñëpp jigéen ñi fop. 5000 nangam. waaw 5000. man jéggul de. non non non ah, maam euh, Birame dimbale mooy góor ñi. jigéen ñi 1004 mooy jigéen ñi. jigéen ñi 1004 lañu góor ñi 5000. loolu mooy tri bi ci Baqiya ak ci morgue bi. loolu nekk na que que xëy na aussi que Covid bi ni mu faat ci góor faat ko ci ci jigéen. waaw xam nga Covid bi xam nga Covid bi ñoom ñoom ñoom balee Covid bi ñoom ci Touba man mën na maa xam mën na ma koo xam secret. nañ ñi ay Covid la. waaw waaye moom ndegam moom mi mi mi bind bind lool man du ma koy bàyyi noonu rek. dëgg li may wax rek foofu mooy euh, chiffres yi dafa jégg dayo ci pathologie yi nga xamante ni moom moo moo faat nii au delà Covid bi moom nee nga enterrement presque dafa doublé. Mm-hmm. parce que ku jógee ci 600 en janvier dem ci ay 1000 loolu takku na. Mm-hmm. mais chiffres yi normalement waa ministère de la santé war na ñoo ñëw liggéey ak yéen jël ko xool lan moo tax et jubbanti parce que cancer bi di wax ñu ngi ci mois d' octobre. ñu ngi ci octobre on a reçu aussi un bi mu wax ak diabète. yooyu c' est nga wax nii dafa jéggi. dayu mortalité chez les femmes ñi accouché. lim bi bëri na waaw les xam ne indaale wuñ néew Chérif Fatou loolu moom moom koo wax parce que position bi mu nekk mënu ko wax mais ñun suñu responsabilité mooy attirer attention kilifa yi ci jàngoro yi rey nit ñi ñu jëm koo jubanti bu dee dañuy yéegal plateau technique bi bàyyi dige bi ñu def ko parce que lii jéggi na dayo c'est wax démb rek xam nga mbas mi dafa ñëw xaw a mbuur un peu yeneen pathologie chronique surtout mooy li ñu wax démb. Mm-hmm. que li laaj ci plateau technique bi laaj ci hôpital bees bi ñuy yeesal ak yooyu yëpp ñu gën a bàyyi xel ne euh, joyante yi bëri na. Mm-hmm. jàngoro yaa ngi fi di mm-hmm. faat. statistiques yi am solo la. Euh, ay ay ay ay wéeruwaay la ay ay miroir la. pour xam exactement cartographie euh, population bi jàngoro yi ñuy am ak surtout spécialistes yi comme ni nga ko waxee comme démb bi ñu waxee ni cancérologue amul fii. ak na gis tawat bi également ni mu fi teewee. loolu ay jafe-jafe la foofu sax papara ba ma ko mayee en fait euh, pour juste wane rek ne du Touba rek. Hmm. parce que miroir la comme ni ko waxee. murit yu bëri bu ñu ñàkkee seen bakkan dañuy sàkk ñu indi leen ci suufas Touba. Hmm. loolu moo tax sëñ Matar yore lim yu takku yi mais li Chérif wax dañ ci war a bàyyi xel te je crois que autorité ñu ngi seetaan. Hmm. parce que bu ñu nee diabète ñu ne mille nangam lu teg. que muy maladie boo xam ne mën nga dëgg dëgg wax mais mais cardiaque hypertension donc muy ay mbir yoo xam ne je crois que autorité yi tamit war nañoo rapproché ci waa muxaddamatul xidma parce que ñii ay source yu fiable lañu mhm. te itam dañoo def seen gëstu yu leer ba am ko du loo xam ne dañ koo ñëw wax mais dañ ci liggéey ak ay médecins buñ ñëwee cause de décès yi ci boppam la ñuy répertorier ci seen liste moom moo war a tax ñu am lim bu takku nii et ils sont très très très très organisés macha allah papara loolu laa bëggoon bi macha allah ah ah que nga répertorier kii lii moo ko faat kii lii ak lii tamit war a gën yokk Chérif mu ngi koy wax dëkk Touba xam nañ day gën a màgg mu ngi màgg di law dem na bu Jurbel continuer ba pare Carrefour la mm. nag côté Matam géeg Linguère ak yooyu Ourossogui gi ñoom ñëpp fi la ñuy jaar voilà yaakaar nañ ne nag mm. kon xam naa état bi dégg nañ plaidoyer ak chiffres yi dina nekk lu gën a am solo ñu gën a mën a yokk jàppale ñoom sëñ Maktar jàppale waa dëkk bi ci pathologie yi ndax nag mm. feebar yi ni mu looloo raw sax corona wallaahi même boo jëlee covid bi ni mu ko waxee nii maanaam région yi néew yi fi ni jógee boo xoolee classement bi moom wax na ko xëy mooy dëkk yi moom la mbir mi gënoon a a laal bien sûr na laa wax Dakar li indi ni mu séparé woo ñu faatu ci nangam nangam par par par bana la bana la Géejawaay ca quartier mu dëkk bana la Pikine parce que gëstu bi day xóot trop. ñun nag léeg ñu am jafe-jafe ndax léeg nga indi néew boo xam ne nii jaarul ci ni mu faatoo day xaw a doy waar. Moussa Koul Fort lu ko am lu xam ko rey. waaye dangay ngay dépendre rek ci waxi docteur yi. dëgg la te ngay dépendre mu tax ñun ma man bés am na ma soxla léegi man li ma wax man naa naa mais mag la naa ko suspect ba dama ko àll maa ngi Touba ñëwal Touba ñu àgg ma ubbi magasin na ko lii daal Fall la jóge lii nangam lii nangam lii nangam yaa ko bindoo bindoo ko. bu xoolee xam ne ma li ñu wax moo ko bind. mu naan diw mii lee ko faat ñu ne ñu ne diw mii lee ko faat ñun. Mm. kon bu rapport yi génnee ñu naan bari naa néew na dëgg ñun ñoom ñoo ko ñoo ko bind. dëgg la ñun ñoo bind. Mm. loolu mooy mooy jikki bi système bi informatisé nañ ko kon bu baax. waaw waaw baqin mooy ba baqin la dafa sérieux mu tax même guddi guddi gi xam nga fan yaa ngi dañu naan baqin am na ko ab sàcc bu ñëwoon sàcc bu ñëwoon loolu jël ñun euh, raam yi ñu ci néew yi barrière yooyu ñu ko sàcc na leen yaa ngi ne fan yii gis nga ci barab mag yi am ñu fi dugg di sàcc ay ay ay ay fenêtre ak ay bunt ah, yaa ngi gis waaye ñoom ñëpp lañu jàpp hmm. parce que daayira bi daayira Matar Kane dong yow ci nga bokk keneen ndax li ñu yor fii day lépp ñëpp lu ne ku ne nga ci dëgg la moo tax ku gis loo xam ne nii dafa wuuteeg li nga def hmm. lan lay corriger jërëjëf nag wax dëgg yàlla palëk bi dañoo jàppale jërëjëf waaw jërëjëf waxtu wi xoj nañu kenn doyalul waxtaan bi neex na euh, c'est c'est vraiment extraordinaire c'est vrai que yàgg nañ couvrir quand même mais euh, ren jii macha allah dañu ñëw génn feneen suñu Maxtaar Kan nekk suñu collaborateur ndax saa yi ñu dem ci jumaa yi dañuy am ñoom seen digga laata ñuy filmer organisation bi exemple la rek euh, am na ñoo xam ne dañuy ñëw xamuñu boo duggee di photo wu bala ngaa taal sa caméra ñoom ñu wàcc ñeeg sa kanam parce que ci kaw am nañu équipe yoo xam ne dinañ la mën a repérer dañuy euh, euh,